wala mbokk yi nga xam ne yéen ñu suivre ci euh, Guédiawaye Info ñu ngi dellu si yoon ci émission bi nga xam ne nañ ko muy yóbbulu koor ñu tàmbali woon di waxtaanee ci li nga xam ne mooy koor ak importance bi mu am ci lislaam ak ci jullit ñi ñi tàmbali woon ci waxtaan ci lenn ci li nga xam ne mooy Allah tabaraka wa taala bi nga xam ne moo jiitu ci loolu te ay ay bu ubbee woon ko tey nag ñuy continuer ci loolu tey nag ñuy waxtaan a yéen ci jeexit bi nga xam ne taqwallahi tabaraka wa taala mooy ragal yàlla dina ko def ci nit ki ak ci société bi muy dund yàlla digal jàmmi digal leen lan bi taqwa ci ragal yàlla mu leeral leen la moo tax mu digal leen ko mu tax mu digal leen li nga xam ne mooy ragal yàlla mooy ne fekkente ne am yooyu am na yoon bi ñu mën a jaar pour sell wala pour defar ak defarle ñeel nit ki wala ak société bi mu nekk mu ne yoon boobu mooy taqwallahi tabaraka wa mu ne su fekkente ne jaamu yàlla gu sell jàmm yàlla gu wér am na benn meññet bu ciy génnee meññet boobu mooy taqwallahi tabaraka wa taala mooy ragal yàlla diine ju wér diine dëgg-dëgg meññet bi tey mooy ragal yàlla pas-pas bu wér meññeet bi mooy ragal yàlla moo tax yàlla wax ci alquran buñ demee ci sortu baqara aaya 21 yàlla ngi wax ne yaa ayyuha nnaas ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun ee yéen nit ñi jaamu leen seen boroom bi leen bind bind ñi leen jiitu woon pour ngeen ragal yàlla lu tax nag yàlla diggal ko jaam yi ngir li li nga xam ne am na ci ragal yàlla ci ay jeexit yu mag ñeel nit ku nekk ak société ba muy dund ci mboolem wàll yi nga xam ne moom lay dund ci société am moo tax yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam dana digal ñuy faral di taxoo li nga xam ne mooy ragal yàlla ci fu ñu mën a nekk jamono jamono jamono ju ñu mën a fekk place bu ñu mën a fekk nañ fexe ba loolu ñu taxoo moom bu ñu demee ci ki nga xam ne moom mooy soloo na benn xadis ñu ne jëlee nañ ci ki ñuy wax abu abu abu zarin al xafaar abu zarin al xafaar moom mu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ma digal na ma am ittaqillaha ay suma kunt na nga ragal yàlla foo mën a nekk baat boobu rek war nañ ci mën a taxaw mooy na nga ragal yàlla foo mën a nekk na nga bàyyi na nga bàyyi xel sa borom na koy fuuglu loo mën a jëf na nga koy na nga koy bi nga nekk école bi ngay jàngee place bi ngay liggéey fexeel nag na ragal yàlla feeñ foofu waxtu woo jëflanteeg nit ñi na nga ci bàyyi xel sa diggante ak sa borom mooy tax ki ci nekk rek nga jox ko àqam mu ne lu lu mu ko ci tegal nee na nee na watba'i hasanata tamhuha te na nga fexe li nga xam ne moom mooy ñaaw yi nga di ko effacé bon ñaaw yi nga jël ko bon waaye wa xaaliqi naasa bi xuluqil xasan waaye na nga jaxasoog nit ñi ci jikko bu rafet kon lii muy taqwallahi tabaraka wa taala muy ragal yàlla boo mooy dajee waaye mboolem yiwu àdduna yi mooy wasiya bi nga xam ne dénkaane bi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala dénkoon na ko ñi jiitu woon ak ñi mujj te it mooy yóbbal jullit bu ñu seetee sax mboolem li nga xam yàlla nga santal jaam yi lim ci nam mooy nañ am ragal yàlla bu ñu demee ci baqara ba tey danañ fekk benn aaya ñi nga xam ne dañuy aj yàlla daf leen wa tazawwadu na ngeen yóbbal waaw wa in fa inna xayra zaadi taqwa waaye li gën ci yóbbal bi ngeen yóbbal mooy ngeen ragal yàlla kon kon bo bu nekk na dénkaane boo xam ne yàlla dana koy dénkoon na ko ñu jiitu te dénk na ko ñu mujj muy yóbbalu jullit yomal qiyaama te ci biir ragal yàlla ci lay nit di amee mucc ci mboolem jafe-jafe àdduna yi ak mboolem jàqare li nga xam ne mooy ëllëg ëllëg yomal xiyaam te it bokk na ci cause yi nga xam ne mooy tax nit wërsëgam di yaatu te ci lay amee sécurité ci lay amee nam ci ay li nga xam ne mooy loolu kon tey lii lañ bëggoon a jàngate waaye di bàyyiloo xel ci li yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ki nga xam ne moom Abu Dharr al-Ghifari mooy ragalal yàlla foo mën a nekk kon yow miy jaay bay xel sa borom yaa ngi jëflanteeg borom baa ngi lay borom baa bàyyi xel kon nag maa ngi digal ñi nga xam ne ñooy jaay nañ bàyyi xel bu baax ki doon jaay di jaay sàngara bi ko ci mbedd bi ko jaay ay 200 ko jaay ay xale ndax bàyyi na xel ci boromam ndax dégg na waxee li yonte boo xoon Abu Zarin Xafaar gis de nga xam ne mooy jaay boppam ci mbedd bi na bàyyi xel bu baax xam ne yàlla nga koy gis yàlla nga koy fuglu kii yore société bi na bàyyi xel bu baax ndax ñi muy liggéey mi ngi leen di jox seen àq wala déet kon yii yëpp baat la boo xam ne lamboon lu nekk ragal yàlla war na feeñ fu nekk war na feeñ ci société bi ngay dund war na feeñ ci emploi yi ngay jëflanteeg emploi yi nga xam ne ñoo nga jël war nañoo bàyyi xel ne kat amaana la yàlla ngi leen di xool ndax ñu ngi koy rafetal wala déet kon lii mooy taxawalaa tabaraka wa taala lii mooy jeexit nga xam ne dina ko nekk ci société bi ñi joxe ñi jox daje ah, émission bii di ñëw incha allah lan mooy euh, ragal yàlla léegi leen fàttaliku li nga xam ne moom mooy numéro bi ku am laaj booy laaj rek nga bind ko incha allah luñ ci mën a tontu rek daañu leen ko tontu wa axiru daxawaana alhamdulillahi rabbil aalamiin asalaamaaleykum